jëm gënal ko fuuf fi mu jóge ndax mooy moom su may wax ci moom fii lay fanaan ndax sama séeréer la bu dem xaw ma di ko ñaanal suñu borom def àjjana doon këram rek comme c'est la vie moom métti na lool waaye nag yéeme na daal voilà. mu nekk xale dem dem bu bette ndax tey naa Sénégal ñëpp loolu la ñu yeewoo bi ñu xëyee fajar gi kenn tëddaatul mën nañ ne si kaw la. waaw mais loolu xajoon na fi xajoon na fi waaye comme suñu borom moom mooy yóbbuwaatee. xam nga xëy na tey bu fekkoon tey bu demoon day am ni man mi jaam bi mënoon naa dem moom mu toog mais nag dañuy sant yàlla rek comme moom wolof dane moom suñu borom moom bu defee dara moom nañ koo ñaanal rek quoi ñu koy moom yàlla na àjjana doon këram rek waaye da xajoon na fi loolu ndax xale la. mu la koy masawu baax a amul benn problème. sëñ bi jege si ne dama xayma gëj naa la gis ba yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm maa sant yàlla bu baax. seede yoo mën a def si moom mi fi jóge. ah di ñaanal yàlla suñu sër rek. suñu jigéen nit ku baax nag nit ku baax tey Sénégal ñàkk na valeur ñàkk na garmi ñàkk na gor ñàkk na jigéen ju am jom ñàkk na jigéen ju fonk ay waajuram ñàkk na jigéen ju fonk ay rakam ju jàppale ay rakkam yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ci barke Seydina Muhammad jigéen ju baax. muy noonu kàddu gi benn la mbaax bu doon weesu mbaax kon tey day weesu mbaax sëñ bi nga sànni si kàddu rek. man de daanaka leen nuyu li sama raq yi wax daal lay wax maanaam sunu raq la sunu doomu nijaay la mais nag metti na tiis na mais bés bi li gën a tax mu tiis ak metti mooy dañuy delluwaat ci bi fi bàyyam wàññi ko donc te yàggul lool daal donc ñun ñiy judd ci kër gi yaru ak moom xam nañ daal mais nag sant yàlla rek ndax feebar bi yàggoon na te jàmbaar la daal waaw jàmbaar la donc comme lii Gumba wax sànq rek yàlla na àjjana doon këram sunu boroom teg ko loxo te rafet nañ jot ci moom daal waaw rafet nañ jot ci moom jàmbaar la woon ci way juróom donc sant yàlla rek daal. ngay jarbaat si coon sekk bi mu fi jógee léegi comme ni nga ko waxee yàggul tey sa sang bi jóge fi mu nekk loo xamante ne ñaari perte la mais yu metti tamit. waa dafa metti torop torop mais xam nga comme naqar day dugg ci kër gu ne waxtu wu ne ak saa su ne donc dangay ngay bees le rek. mais metti nañu torop torop trop trop torop ndax bi mu wàññi ko ñun ñëpp ci suñu nijaay la suñu xel gën a delluwaat ndax moom i dafa deewe xale maanaam ak ni mbir mi demee nii ak waajuram donc dafa doy waar daal metti nañu lool ba kenn xamul looy wax wala looy wax donc santaat yàlla daal ndax yàlla kenn mënul xëccoog moom waaw yàlla na daal yàlla teg ko loxo rek waaw te cat bañ koo jiitu ci bàmmeelam mais metti na tiis na trop ndax dafa deewe ndaw doom yi léegi bi ñu leen gisee ci jàkka ji sa xol sax day fees mais nag waaw doy na waar doy na waar doy na na trop mais nag sant yàlla rek yàlla baax te mu ngi noonu Pape dégg ni ñu ko waxee ñi nga xamante ne ñoom ay mbokkam lañu ndax dañuy faral di wax ne doomu nijaay di mbokk ñoom ay cousine ay cousin moom mi lañu ñu ñëw fekk leen fi tam si levée du corps bi nga xam ne ñëpp a ngi wàcc pour fas yéene koo gunge si këram gu mujj ga ñu dem ñu uufal ko waajuram bu góor wa dañuy topp rek lépp loo xamante ne am na si ñu daal di koy ànd ak ñi nga xamante ñooy seetaan émission xew-xew fii si biir 7TV télé bi ñu ñu ngi leen di li nga xam ne Sénégal jërëjëf euh, ñoo ngi jaale askan senegal gépp ci jiital kilifa diine yi euh, di jaale bu baax président Bougane euh, soxna si nga xam moo fi bàyyi ko muy soxna moom yi dañuy sekk ku jàmbaar ku bëgg borom këram ku taxaw boroom këram ku liggéeyal réew mi ndax léegi lay nettali naan. Euh, nit la koo xam ne xamul kenn ki ki jaxasoog boroom këram la xam te ànd nañ meraaran borom këram gërëm ko sant ko ci taxawaay yi nga xam ne ni moom la ko daan taxaw maa ngi wax léegi sëñ Cheikh ak sëñ Modou mi ma àndaloon di leen wax ne bi nga xamee ne Bougane a ngi def anniversaire bii jàll dafa dajale ay waxtaankati murit teral leen ne dama bëgg ngeen bégal ko ci suuram bi te nii Sénégal gépp yégee ni rek ak kenn ku ne am naqar da ci ñi ko xamul sax loolu rek wane na ni eh, yàlla eh, def na ko ci nit ñi nit nag buy dund mën nañ koo bañ a xam waaye su fi jógee dañuy xam lan la doon équipe ci àddina. mu nekkoon jiit si yéen ngeen doon liggéey ak moom ban genre patron la woon parce que loolu yéen ñi doon liggéey ak moom yéen a ko mën a seede. nit ku compréhensif la nit ku compréhensif nit koo xam ne ndamam mooy ndamu boroom këram nit koo xam ne ni lépp loo ko wax mu ne d'accord xool leen rek mu leen gën a juboo wax dëgg yàlla eh, te ko am respect la ci nit nit ko am respect ku mën a jox nit cër nit koo xam ne itam wax dëgg yàlla du am mu ne noonu nii lañ ko bëgg wala nii lañ koy defee force day wax ne xool leen ni mu gën a rafet ak ni mu baaxee en tout cas na tali bi am ndam te man seede laaj rek ne borom këram wax na ma elle loolu baat boobu li ma ko li ko daan dégg mu di ko bari na ci lépp loo xam danaa wax ne ma euh, foo ma gis foo gis moom mi muy dem xamal ne man maay dem ndax fu mu jug sol daal la man maa tax mu jug yàlla na ko yàlla yërëm te xeeru ko ci àjjana yi gën a kawe te cat bañ koo jiitu ci bàmmeelam te yàlla teg loxo ci njabootam gu sew gi mu fi bàyyi de jàpp naa ne liggéeyam incha allah sama borom dina ko fay njabootam jërëjëf. ñu koy jaal bu baax a baax yéen waa des médias yi. jërëjëf yéen ak waa 7 ngi leen koy daal parce que média yëpp a ko bokk yéen tamit leen liggéey bi rafet na yàlla yàlla gën leen a taxaw jërëjëf. jërëjëf mu ngi noonu ay ca ñu daal di rek ba tey Pape gis nga loolu moo am fii nga xam mooy Ouest Foire fi ñuy waajale moom ñu gëy fi nga xamante ne mooy fi ñu koy jullee pour yóbbu ko yoof xarit di sama lépp donc euh, te ki dem aussi dafa am réputation du nit ku baax koo xam ne sénégalais yëpp ko respecté yaayam aussi di jigéen ju baax bu nit ñi respecté donc dañ koy ñaanal rek yàlla xaare ko aljanna jéggal ko et vraiment sénégalais yi tamit ñu gis ñu jàng ci leçon li ñu li ñu li ñu li ñu seex li ñu seex moo ëpp lu ñu différencier lii rek wane na ko te lii rafet na trop donc voilà vraiment ñaanal Bougane nag parce que euh, bu lii bu la boo gisee ku mu dal rek nga xalaat sa bopp bu la daloon nooy def donc yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xaare aljanna saraxam yàgg suñu loxo. jërëjëf ak sa en fait kii laa gënoon miin nag vraiment euh, yaayam papaam ak euh, Bougane ñoom laa gënoon miin moom dama damay dégg rek yu wax yu baax yi ñuy wax ci moom. ak euh, ni mu meloon ak ni mu uufi njabootam ak ñoom seen ak population yi ko xam si ni ñu ko bëggee woon te papam nag di sénégalais bu special Thione Seck Bougane tamit di ku bëgg réewam ku taxaw ñëpp xam nañ ko xeexal senegal fu nekk donc euh, yii daal bu amee c'est le temps de l'unité l'unité retrouvée nit ñu xalaat nag jë tiré ci ay leçons Sénégal benn bopp la ñun ñëpp a bokk ñëpp ay mbokk lañ ñëpp ay xarit lañ lu fi amoon ci naqar ak malentendu yi nañ ko tegi teg ko fële te travailler à la réconciliation nationale ñu juboo ànd nekk benn lii moo rafet parce que lii mooy Sénégal doom la parce que depuis très très très jeune moom ak waali yëpp samay dañ la doon fréquenter jusqu'au moment où nous parlons kon su fekkee ni jóge nañ fi tey li ñu mën a def rek mooy ñëw ñaanal ko yàlla xare ko àjjana euh, ñu gis ne également tout le Sénégal est réuni li moo tax muy wax nañuy rafetal ndax toujours lu mënti xew ñu ñëpp ñoo fay daje tey boo xoolee tous les leaders politiques fu ñu mënti bokk toutes les religions toutes les confréries ñoo fi daje tey vraiment pour di ñaanal ki nga xam ne moo fi jógee moo tax may wax toujours di fàttali ni bu dara xewul jàmm am nañu jàpp nañu daal nañu rafetal parce que bis bu mel ni day am beneen bis également day am donc ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana ngi nii moom itam di frère si ki nga xamante ne moom moo fi jóge tey muy Momy Seck Seydina bokk ak Assane Ndiaye benn ndey ak baax a baax waaw ñoo ngi waaw waaw xanaa di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ko ñaanal yàlla suñu borom bu xaare ko aljana ak bépp jul bu mu fekk ak képp ko fa fekk yàlla aljana jërëjëf merci. ayca mu ngi noonu moo feex Seydina Thioune ñu ngi ñu Seydina ñu ngi koy massa bu baax baax moom tam papa ñu ngi lay jaay li ñu. ñu ngi leen jaar mbokk jaar imam Cheikh Waly Seck ñëw fii donc di doon taxaw suñu jarbaat bi ah, di Momy Seck ah, yaayam di suñ jigéen soxna Kiné Diouf ah, lii wane na ni nit ku baax la woon nitu nit ñi la woon jëkkëram gërëm na ay mbokkam gërëm nañ ko sëriñ yi kër diine yëpp. Thierno Madani def na témoignage ci moom waa Touba yi ñoom ñëpp def nañ témoignage ci moom ci taxawaayam ñoom muy liggéey ndaw aussi nekkoon seen patron def nañ témoignage ci ñoom Ablaye Mbaye pex résumé que nee na moom moom yi seen wëjur la woon puisque euh, bugaan bu ñu duñu gis bugaan mais moom moom la ñu doon gis donc moom moo newoon seen yëpp daal yàlla na ko yàlla yërëm teex ka guddi ajuma ji yàlla na ko jik euh, yàlla bu ko cet jiitu ci bàmmeelam li mu fi bàyyi ci njaboot njaboot gu sew yàlla na ci salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf jërëjëf papa ñu ngi lay masaw baax baax mu ngi noonu gis nga euh, jullee nañ ko pare ñu ngi fas yéene ànd nag dem ñi nga xamante ne ni monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. un mot. waaw dama fi ñëwoon fekkee levée du koor bi à un double titre parce que moom i doomu Thione la te Thione moom ma ko mas présenté yàgg na euh, donc Thione nekk sama xarit en même temps aussi Bougane nekk sama xarit donc dama fi ñëw à ce double titre comme sama doom ak comme jabaru Bougane donc euh, vraiment di ko jaale di ko jaale mbokk yëpp. Euh, di ko jaale Wally Seck di ñaan yàlla xarit àjjana aca mu ngi noonu ñu ngi koy jaajëfal baax a baax monsieur le ministre moom itam gis ngeen Sénégal yëpp a ngi nii ah no foire fa seenee ànd ak sekk gunge ko ci këram gu mujj ga weesu foire nga xam ne fi la waajuram wu góor yu dëkkoon fi la ñu ko waajale itam nga xamante ne mbokk yeeg xarit ak am di ñu ngi fii nga xam ne mooy weesu ñu fa seenee dem fële nga xam ne moom mooy si armeelu Yoff fa seene ko jébbal boroomam ah voilà mu ngi noonu mu nekk loo xamante ne lu metti lool lool lool la ah sëñ Fallou mu ngi nii moom itam mu daal ci sànni waaw tey tey li am moom vraiment métit la naxaratiis la maa ngi jaale Sénégal yëpp xale bi sunu doom ji parce que ñu nag bàyyam la woon di ko lëre bàyyam coon balago Seck yal na ko yàlla yërëm tey moo ngi fekki baayam ba yal na leen yàlla boole yiw ak yërmande yërëm leen xare leen àjjana di ko jaale borom këram di Bougane Gueye Dany mi nga xamante ni sama frère la sama rakk la sama lépp la di nit ku yàlla baaxal ñu bokk Serigne Touba euh, maa ngi koy ñaanal di ñaan di ko jaale aussi jaaga ak njabootu D-Média gi yëpp di ñaanal Momy Momy Dany mi jóge fi yàlla na ko sunu borom yërëm xare ko ci àjjana yi gën a kawe yàlla na ko fi mu jëm gënal fi mu jóge yàlla na rëccu lépp mu doon def ci àdduna ñun ñu xamoon sa relation ak Thione Seck moom mi aussi di doom comme ni nga ko waxee ban yëg-yëg nga am bi nga yëgee tiis bi dal si askanu Sénégal. man dama yeewu fajar mu doon tiis boo xamante ni wax dëgg yàlla ça m'a tellement mais dañuy sant yàlla ndax yàlla moom bu soxlaa rek jaam day ñàkk vraiment dem na à la fleur de l'âge demee na ndaw waaye yàlla na mottalee ndawam àjjana mu ngi noonu Fallou Dieng dégg ngeen ko kenn dootu waxati digganteem ak Thione Seck waaye ñu ngi taxaw aussi ak nga xam ne mooy Zeka nekkoon si kër gi euh, Seydou Nooru ñu ngi koy ziar bu baax a baax. ñu ngi lay delloo ziar Ndeye di di di la di la masaw li ñu bokk di ko jaale Sénégal yëpp comme ni nga ko xamee moomi moom moomi ñun ñëpp la woon. donc liggéey nañ D-Média ñu amoon ay relation yu exceptionnelle mu nekkoon nit ku baax nit ku humble nit ku modeste nit ko xam ne liggéey rek lañ xam ci moom man moom li ma li ma gisee ak moom yëpp ci ay production rek lañ daan gisee très rare nga ko daan gis ci télé bi mu nekkoon nit ku baax vraiment di ko jaale euh, D-Média yëpp di ko jaale Sénégal yëpp di ko jaale le président Bougane Gueye Dany waaye surtout nag maa ngi koy jaale sama yaay jaaga man man man jaaga laa gën a xalaat que ñëpp sax j'ai une forte pensée pour jaaga euh, bu jigéen euh, ñàkk Papa Thione bu yàggul Euh, donc vraiment man daal j'ai une forte pensée pour Diaga maa ngi koy jaale aussi sama frère Waly di leen ko jaale di leen masawu yéen ñëpp ngeen baal ñu ñu dem ci armée jaajëf mu ngi noonu Aïcha Zeka mu ngi noonu moom tam noonu di romb di dem moom itam fas yéene dem fële ci armée li gannaaw bi ma waxtaanee ak rakkam jooju di Seydina Assane fi mu toll nii choc bi daf ko jàpp ba mënul yëkkati wax euh, kàddu waaye dañu koy comprendre tam téléspectateurs yi gis ngeen fi nga xamante ne fi la ñu nekk nag yëg si nañu yoof fi nga xamante ne fi la ñu ko fas jébbal këram gu mujj gi muy kooku nga xamante ne mooy Momy Seck gannaaw bi ñu jógee si levée du corps bi nga xamante ne ànd ak mbokk yeeg xayi deeg am di jàmm yëpp képp koo xalaat Sénégal rek moom fii si këram gu mujj gi Pape dag mooy topp ñu daal xuus dem comme ça euh, ñi nga xamante ne ñoom itam ñu ngi ànd ak ñun si 7TV si émission xew-xew xew-xew bi nga xam ne moom moo dal si askanu mu ngi nii tali bi dafa fees dell parce que délégation fu nekk la nit di jóge ñëw si li nga xamante ne moom mooy gannaaw gunge ko ci këram gu mujj gi nga xamante ne ni fii la ñu ko fas yéenee denc ki nga xamante ne moom mooy waajuram woowu ñu fas yéene ko uufal muy Thione Seck nga xamante ne ñu ngi koy jooy ba léegi noppeeguñu mu nekk perte bu méttee méttee méttee Sénégal yëpp àndandoo dund ko mu ngi noonu mu nekk lu métti lool lool Papa Assane nuyu naa la Seydina nuyu bu baax a baax voilà mu noonu ñoom ñëpp ñu ñëw fas yéenee ànd ak moom jébbal ko boromam. vraiment mu nekk perte boo xam ne Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ñoo ko ñoo ko ñoo ko jooy ndax ni mu demee la 42 ans nekk jigéen nekkoon koo xamante ne nii ku jàppale borom këram la woon di ko ñaanal bu baax a baax a baax yàlla ko yàlla yërëm xare ko àjjana oyofal suuf si kawam de médias sëngéem Sénégal sëngéem képp koo xamante ne xamoon nga kuy Momy Seck si discrétion bi si yar bi si teey gi si effacé wu bi parce que Sénégal léegi nekk na nit ñoo xamante ne ni kenn ku si nekk rek saa su nekk da wane sa bopp si li nga mënti doon waaye moom mu bokkoon si nit koo xamante ne ni ku effacé woon la vraiment ñi ko xam ñëpp yàgguñu koo xam tur bi la ñu gën a miin ko jëmm ji ndax ni mu effacé woo ndax ni mu discréwee ndax nit ki nga xamante ne ni wanewul daray àdduna mu nekk loo xamante ne lu metti lool lool lool lool Corbillard bàyyi noonu yegsi na fas yéene koo jébbal boroomam vraiment mu nekk perte bu méttee méttee méttee. baax mbokki téléspectateurs yi gis moom moom nga xamante moom mooy doomam jooju fas ko fekk tey gu gu mujj bu njëkk mu tëdd ko si biir suuf ñu ufal ko waajuram woowule moom i Seck nag ku ko xam-xam ko si social ku ko xam-xam ko si yaru ku ko xam-xam ko si teey xam ko si nit koo xamante ne ku la ndax nee li mu yoroon yëpp boole ko bangi bangi boole ko nit koo xamante fu mu nekk di wane boppam mu nekk nit ko avancé wu lool lool lool moom nag la ñu fas yéene jébbal boromam mu nekk loo xamante ni lu métti la Sénégal yëpp sëngéem limaan laama ngi noonu moom itam ak Assane Ndiaye ak nu mu tuddati Aziz Ndiaye ñoom itam ñu ñëw fas yéene ànd ak seen xarit seen seen frère Bougane Gueye Dany jébbal euh, ki nga xamante ne mooy seen soxna euh, ki nga xamante ne moom mooy Momy Seck mu nekk loo xamante ne lu métti la lool. Ndiaga ñu ngi lay massaw li ñu bokk Euh, Pétaw maa ngi la koy jaale di ko jaale média bi yëpp Sénégal a ñàkk euh, média bi moo ñàkk euh, adduna bi moo ñàkk li tax man ma ni adduna bi moo ñàkk tey am nañu ko statut te xamuñu ko man tey am na ñoo xam ne jaale nañ ma moom it te xamuñu ko am na ñoo xam ne tey ñaanal nañu moom it te xamuñu ko kon Sénégal moo ñàkk ki ñu ñàkk nag lu rëy la ci ñun mooy ki ñu daan fédéré mooy ki daan def médiation ci ñun mën naa ni def na li muy xale-xale ci 42 ans rôle yaay la amee woon euh, ci euh, kër ga doonoon ku ñu suturaal tey ji nii man rek sama armoire su ma ko ubbi woon euh, ay yéreem yu bari moo nga ca matoon nañu kilifa matoon nañu kilifa te doxe woon na ko moom i damay wax ni fi ko buggaan soxlaa ci fi mu jëm ci la demee mais fi ko àdduna soxlaa ci 42 ans ci la dem waaye fi ko dee média soxlaa ndax yëngu-yëngu yi ndax defaraat gi euh, fa dem euh, moom i nag euh, doon na ku dund ci sutura waaye ku dund sutura ci feebaram ndax feebaram gisoo benn ñu affiché ko ci site internet wala ci média kon sutura na dund na sutura ci feebaram mais dund na sutura ci ci deewam ndax feebar na lu yàgg te kenn xamu ko li muy feebar feebar feebar ñun ñu nekk dee médias te yëgoon feebar bi rus nañoo toog waxtaane feebaram kon dund na ci sutura dee na ci sutura te ku dund sa jëkkër gërëm ba tuuri xéewal nga dund ñi nga doon liggéeyal gërëm la ba am ñu ci jooy nga dund sa yaay gërëm la ba tuuri xéewal kon am nañu yaakaar li mantulaay di wax ni yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam moom lañ koy moom lañ koy moom lañ koy moom lañ koy ñaanal ñàkk nañu ku seer ci ñun ñàkk nañu moo doon suñu kilifa bëri na koo xam ne ci télé ba euh, xamoo numéro bugaan numéro am nga xam bërki dem man ak bugaan dañuy wax téléphone rek ma ne ko man bu euh, euh, nu mu moomee sama patron mu wax ni ma euh, euh, concept bi maa ko bind man ko mais man joxoo ko moom yi moo ma ko jox kon fi moom yi yeggoon ci ñun la te buggaan xamoon na ko yàlla na yàlla yërëm ko te xare ko àjjana di leen ko jaale yéen ñëpp mu ngi noonu moom Ndiaga Fall la woon nekk fële si des médias moom itam nekk fa koo xamante ne émission yi am solo daf koy faral di def moom moo doon ay seede yi nga xamante ne si seen kilifa googu di di di di moom mi Guèye moom mi buggaan ñu ngi koy ja maa saw bu baax a baax voilà jébbal nañ ko boroomam nag ba pare mu ngi nii ñu ngi dem sëñ Samba Ndiaye sëñ sàmba ñu ngi lay jégalu bu baax a baax benn moo rek nga jaale sa sa voilà mu ngi noonu dañ leen di comprendre jégal nañ ko borom ba pare Sami Thioune Sami Sami Sami voilà Sami Thioune mu ngi noonu moom itam dañ koy comprendre fi mu toll nii tristesse rek la sénégalais yi génne. kenn ku ci génn ci bàmmeel bi sa xel dafay dem ci way juróom woowu nga xam ne moom la ñu fi rob barki de moo njaay baabooy ngi noonu di dem euh, tey moo tax Sénégal ñëpp tristesse la ñu xëyee fajat ba léegi nee naa la kenn tëddul ci lal ba ci ngoon gi nii ñu ngi koy jébbal boromam parce que 18 euh, heures 46 minutes nga xamante ne si la armée yi tëj fi lay tombeeg juste heure rob bi di jeex ñëpp di génn mais daal tristesse nga fiy gis Sénégal ku nekk ñëw na wuyu si Bougane ku nekk ñëw na gunge si moom mi nga xamante ne fii mooy këram gu mujj mu nekk nag un grand perte boo xamante ne yaakaar naa Sénégal yëpp ñoom ñoo perte mu nekk lu métti lool lool lool vraiment. voilà mu ngi noonu mbooloo mi ko gunge si woon mbooloo mu takkoo takkoo takk ñoom ñëpp a ngi nii di génn hmm, di nga xamante ne nii këram gu mujj giñ ko doon gunge fii si armeelu Yoff vraiment mu nekk lu métti Assane Ndiaye ngi noonu ndeysaan choc bi moom itam da ko jàpp ba léegi hmm, mu nekk loo xamante ne nii ñëpp ku ci nekk daal dañ lay comprendre voilà ku ci mënul wax tam dañ lay comprendre. voilà mu ngi nii kenn ci famille bi ci kër gi moom itam ci la bokk ñu fekk ko fi depuis sànq ba tey ñu ñëw jébbal seen soxna seen xarit boromam ñu ngi lay masawu baax a ñu ngi leen koy jàll yéen waa presse bi yëpp parce que wax dëgg yàlla moomu moomu Sénégal yëpp la di amar nag wax dëgg yàlla lu diis di wax ni dal na suñu kaw ñëpp surtout ñi nga xam dañ bokk moom famille politique. mu nekkoon femme bu serviable koo xam ne elle était très proche de son mari daan def lépp ngir moom comme témoignage bi lépp wax nañ lépp ci moom ci lu baax. xëy na du ma ci mën a sori mais nag wax dëgg yàlla tey suñu xol neexul ñu ñaan ñu ñëpp ñaanal ko rek yàlla suñu borom wàcce yërmande ci moom sàmm njabootam te xaale ko àjjana fa mu jëm gënal ko fi nga xam fi na jóge euh, papa ñu ngi lay nuyu gëj laa gis ba jàmm euh, jàmm rek di wax rek inaa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di leen di ko jàll nag yéen waa presse bi ndax boo nee bugaan rek tudd nga presse kon bu ko lu mel ni dalee presque bépp daw ñëw kon yéen lañ koy jëkk a jàll waaye di wax rek ne xale bu baax dem na tey euh, li ma bokk moom yaakaar naa ne boo doon tànn tey ñi mu ko bokkal fii barewuñu ndax coon maay nijaayam moomi di sama sët waaye dafa dee ci toolu xare fan mooy toolu xare mooy jigéen dem ci sëyam di ko sëy ba yàlla may moom ko fa na rek direct kooku moom amul problème parce que nit ñi ñëpp di ay mbokkam kenn amul ci kàddu di wax tey ku dul bugaan mi nga xam ne moo doon borom këram moom moo seet di ko neex mu def ko moom moo seet li ko neex mu denc ko fa kon dañuy ñaan mbooloo mu mel nii yàlla bu ko cat jiite ci bammel parce que doomu aadama dina catu doomu aadama sax te euh, euh, fekk mu nga bar eh, mbooloo mi ku leen gis xam ne am na ci mbooloo mi ku yàlla rus kon dañuy ñaan moomi yal na ko malaykam yërmande teeru di ko jàll nag Sénégal gépp gépp li ko dale ci sëriñ yi di euh, euh, kilifay diine yi kilifay aada yi kilifay cosaan yi politiciens yeeg ñëpp ñu ngi leen di jàll moomi waaye daal mën naa seere xale bu baax dee tey xale boo xam ne bi mu juddoo ci sunu kanam la parce que ku yar coon yaa yar moomi te man maa yar coon kon bu ma yaree coon ba pare tey coon bàyyi fi mu njaboot goo xam ne tey bi mu bi mu tëddee Sénégal gépp génn nañu mu ànd ak doomu aadama boo xam ne aussi doom dafa bokk ci doomu aadama yi nga xam ne kenn mënta tudd Sénégal te tuddoo Bougane Gueye Dany kon lu mel nii daal yal na fi këj lu mel nii yal na fi këj mag nag du yàlla mais dafa yàgg ak yàlla nañu delloowaat suñu bopp ci rab rabbu samaawaati maa fi ard ndax kenn ku ci nekk nag yaa ngi sa ticket dee numéro bi nga xamul mën ngaa rob vingt 28 tey numéro 29 kon yàlla nañu yàlla defal jërëjëf di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, di wax ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi jaale li ñu ngi jaale ñi nga xam li nga xam noo ko bokk ñun ñëpp ñu ngi kaa jaale ka nekk di wax ne mettit la ba ba tar ba nga xam ni euh, dafa nu jële kaw daf nu jële kaw euh, yàlla nag mooy mooy def ak ay mbiram euh, loo xam ni kenn mënu ci dara defe naa lu nu fi wax rek ñëpp wax nañ ko nit ko baax la woon koo xam ni ku mën liggéey ku mën liggéey ku ku fonk waxtu liggéey ku am ku am yitte si nit yi nit ko baax wax dëgg yàlla liggéey naak moom jamono bi may euh, nekk ak Wally liggéey naak moom jamono bi ñuy nekk D-Media di wax ne <clears throat> nit la koo xam ni li ko dal euh, métti nanu mais yàlla yàllaa fi nekk te nag c'est un rang la fi mu nekk nii ñi nekk ci biir ñun ñi ñëpp ñu ngi génne ci biir cimetière yi nu kaa denc mais kenn xamul kan lañ fi ñëwalaat donc yàlla na rafet looloo tax loolu tax Sénégal dañu war a dañu war a xool lu rafet nu def ko euh, tout à l'heure je disais à à nos de de Seneweb euh, ne ne il faut ñu baal ñu te dafa am message boo xam ne dama ko bëgg a fii te lu ma gëm la te c'est à, à votre endroit à notre notre endroit ñun suñu bopp nu kaa wax presse sénégalaise yëpp gars yi nañu bàyyi ñëw ci cimetière yi di jël lii. si biir comme bii ngeen baal ma de billaay li may wax ni du neex a dégg mais ñun ñi ñëpp fi ñu taxaw nii di wax cimetière du place wax cimetière du place wax donc Sénégal na dañu jël benn mode effet mode la wala contexte bi la wala liggéey bi la aussi moo koy laaj parfois technologie bi moo avancé mais mais mais cimetière du place wax donc man jàpp naa ni bu ñu mënoon bàyyi ba sax nit ñi dem ci seen kër yi mu tane xam nga nit ku ñàkk moom pour mu wax dafaa jafe. mais loolu moom dama kay ñaan yéen presse bi dama leen kay ñaan lu nu mën ci dëj bu am dëj du dëj du espace su communication pour man espace su mettitlu la am lu la nga xam da nga kaa yëg nga téek rek ñaan yàlla bërëbu ñaan la donc ñu euh, ngi see jégalu di si tub bu baax mais il fallait ñu wax ko comme message pour à l'endroit toute la presse mais waxee ne ki fi jógee yàlla na yàlla def ko xaritu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku nu xamoon la nit bu baax wax dëgg yàlla demam métti nañu trop. ñu la koy jaal bu ko bokk voilà Pa Assane Seck ngeen ko noonu moom borom 2A moom itam nekk koo xam ne ku yàlla baax la waaye keneen koo xam ne kilifa ci kër gi suñu papa moom itam papa Pape Malick ñu ngi koy masaw baax a baax kilifa ci kër gi papa Pape Malick maa ngi lay ziar maa ngi lay doon la ziar sama doom ju baax ji ñu lay masaw li ñu maa ngi leen di delloo dëgg-dëgg li nga xam ne moom la ñu bokk ñun ñëpp vraiment ndax ki nga xam ne moo fi jógee day ko foor ci ñun muy dëgg-dëgg moomi bugaan Euh, koo xam ni euh, ñàkk nañu ku rëy ci ñun waaye nag suñu borom kenn du xëccoog moom ndax dafa bind dee doog a bind dund nekkoon nag genn wàllu borom këram ah ki nga xam ne mooy dëgg-dëgg euh, bugaan ñàkk na tey ku rëy ci moom ndax koo xam ni xam nga dafa doon complété bugaan ci loo xam ni li xam nga nit matul yàlla rek a mat waaye tabaarakallaahu nekkoon na jigéen joo xam ni ah li naan chaque grand homme y a une grande dame loolu moo daloon dëgg-dëgg moomi dafa doon complété borom këram ci zahir ak ci baatin di bëgg nit ñi di bëgg képp kuy liggéey ak bugaan mu bëgg ngay bëgg bëggul kenn am lu ko naqari di ko rassembleel te la sëñ Babacar Si waxoon radiyallahu taala anhu ni eh, da nga may darle moo ma gënal nga daru ci man moom danaan darle jëkkëram képp koo xam ne kii ni sa bët xonq na boo toogee ak moom yi bu soobee yàlla ak yonent bi dana faj sa soxla te kenn du ko yëg kooku nag moo fi jóge tey foor ci ñun lool denc ko tey jii dëgg vraiment ci ngoonu alxames gi nga xam ni tabaarakallaahu da wax ni ku ci fanaan ci bàmmeel ah yaakaar naa ni yërmande sunu borom mën naa wàcc ci yow nga xam xam ni ngoonu alxames da nga jëm ci ajjuma fi mu ne ñu ngi ci ajuma yal na ko yàlla yërëm teye yeexal yal na yàlla yokk leeram tas ñu ci barkeem vraiment kontaan naa yox yow suma doom nga suma xarit bi yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel yëpp macha allah. jërëjëf suñu papa mu ngi noonu papa Malick moom itam li nga xamante ne seede yi mu wax mënu ko woon a bañ a yëkkati ndax xamoon nañu digganteem ak moom mi ndax lu baax yi mu daan wax si moom mbokki téléspectateurs yi mu ngi noonu mu nekk naqar boo xamante ne ni lu metti lool ñoom ñëpp ñu koy dund sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi ak ki nga xam ne moo fi jóge tey. waaw comme li may wax rek moom si moom moom ku ne kuy wax si moom na nga wax loo xam parce que koo xam ne nii la amul woon soxla fenn fu dul sëyam njabootam jëkkëram parce que bu neexoon mu ne maay doomu bugaan lu ne ñu ko say gis waaye moom it kenn daanu ko gis si dara yaa jaaga nag laay wax mu ñël ak Waly Seck parce que moom moo ñàkk ak la famille waaw mais moom i moom amoon na diine jàmbure na téye na tànkam téye na boppam yàlla na ko yàlla xare aljana waaw di leen gërëm loolu daal laa si doon wax ngi noonu ba tey ñu daal di wéy la rek ah, li nga xamante ne moom la Sénégal yëpp ñàkk ñu ngi taxaw ak Salam Diallo moom itam. di nga di ko jaale Sénégal yëpp di leen ko jaale yéen waa Sénégal ñu bëri ci yéen lañ ko yëgee ah, yow na ngay gis nañ taxawaay bi Abdou Salam gis nañ seen taxawaay yàlla na leen yàlla fay moom i baax la woon moom laa jiite média waaye ñu bëri sax da doon juum ci suba jël vidéo rakk ji naan moomee ngi loolu li ko waral mooy làqatu bu mu làqatu woon waaw yaru toog ci ndeyam bàyyam gërëm ko donc ñoo ngi leen koy jaale ñun ñëpp. salaam ñu xam sa digganteek waa kër Papa Thione kenn du wax salaam jàlloo di wax euh, Papa Thione tey nag nga ñàkk koo xamante ne doom la ci yow mën nañ ko wax ndax wëllëre gi nga amoon ak way juróom. waaw ndey Pétaw yow moom dan la koy jaale ndax ku xam coon xam ma xam la yow ñoo la yar. donc xam nga moom bu baax xanaa da ngay def sa liggéey rek waaye ku effacé wu la woon ku baax ku amul diine ku amul lislaam koo xam ne liggéey rek la xamoon nekk di jiite média mais kenn mësu ko dégg ci lu ñaaw donc tey bu nu bu nu bu ko yàlla mi nga xam ne moo na ko joxoon jëlaatee dañ koy ñaanal rek fa mu jógee fa mu jëm yàlla na fa ko gënal fa mu jógee ci barke Serigne Saliou jërëjëf ñoo ngi leen koy jaale bu baax jërëjëf bi noonu Abdou Salam moom itam kenn doot ko présenté xam digganteem ak Thione Seck xam digganteem ak waa kër gi nga xamante ne tey euh, ki nga xam ne moom moo fi jóge mu ngi noonu euh, rob nañ ko ba pare ñaa ngi génn ñu ngi massaw ñëpp di leen wax ne tey émission xew-xew lii rek lañ leen indiloon diggante levée du corps bi ak fi nga xam ne mooy cimetière yoo fi nga xam ne fii mooy këram gu mujj waa 7TV gunge ko ñëw ba nga xamante ne fii la tëdd ñu jaal ko ay mbokkam bi massaw ñëpp ndax nee naa léegi ñu mu ngi ñu uufal juróom bi tey guddi àjjuma gii la fas yéene fanaanam guddeem gu njëkk si biir bàmmeel xamuñu ñun ñi taxaw di wax yëpp kan moo koy fekk ji yàlla na àpp soree ñu koy ñaanal bu baax baax waaye bu ñu ne moom mi sekk yu benn la ku baax ku yaru ku dal ku discret parce que mënoon nay wane boppam nag saa su nekk ndax euh, posture yi mu yoroon yëpp mais vraiment defu si benn mu nekkoon nit ku discret koo xamante ne ni vraiment booleel woon daraa ki wax lépp liggéeyam la ko doon defee mu nekk koo xamante ne ku yaru woon lool loolu ñu ngi koy jaale suñu yaay euh, Kiné Diouf vraiment di ko jaale borom këram Bougane Gueye Dany di ko jaale képp koo xamante ne yaa ngi yeewoo Sénégal waaye équipe bu 7TV yëpp si njiitalu Maimouna Ndour Faye mu ngi teg njaal mi si loxol Bougane Gueye Dany mi nga xamante ne naataangoom la frère am la ñu ngi koy jaale soxnaam soosule di ko wax ne ko yàlla na xippee àjjana yàlla na suuf yoof oyof ci kawam jaajëfal naa leen bu baax a baax yu mel nii dañuy ñaan suñu borom yàlla na fiy gëj ndax naqar la boo xamante ne tey bi mu dalee si askanu Sénégal si alxamis bi fajar gi Sénégal yaakaar naa boobu ba léegi ba ni ñu koy jébale borom kenn tëddul si lal mu nekk perte bu metti metti métti métti 42 ans yàlla mayoon na ko ñetti bant yu góor ñu koy ñaanal rek yàlla oyofal suuf si kawam incha allahu rabbi tey guddeem gu njëkk gi muy def si biir bàmmeel yàlla na mën a tontu laaj yi ñu koy laaj yëpp lépp lu doon def si kaw suuf si ak mbaax mbaax yàlla na ko borom bi nangul yàlla na ko ak jëfam fekk foofu te suñu borom àtte ko si yërmandeem xare ko àjjanay fi daw si jaajëfal nañ leen bu baax a baax rendez-vous incha allah mardi lay doonaat si benn xew-xew bu am si réew mi baax baax Pape Diop moo nekkoon si caméra bi waaye Palo moo si oto bi incha allah rabbi di baax baax di jaalewaat askanu Sénégal yëpp di jaale képp koo xamante ne rek bokk nga si famille nga xamante ne mooy famille Seck di ko jaale sama xarit ba Rouba Seye ñoom Assane Ndiaye ñoom Seydina ñoom ñëpp ñu leen koy jaale jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah beneen xew-xew si biir réew mi